Descos moom wàllam mooy di saytu toogin ci suuf toogin wu jaar yoon te respecté euh, loi euh, dañuy obligé rek ñëw dindi borne yi parce que loolu la yoon santaane. li ci des nag xëy na dina am du xëy na sax mais lu leer la dina may ay enquêtes yoo xam ne dina suivre lii nga xam ne gis nañ ko te mu nekk loo xam ne normalement autorité territoriale waru ko def parce que ni euh, ni koy ni koy nasaraan di waxee rek. Euh, yoon moom ñëpp ko war a xam donc ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk ci euh, gox yi war a dimbale administration central pour que lu jaarul yoon nu signalé ko malheureusement ñoom da ci am ñoo xam ne dañuy profiter ci seen position di def ay lotissement yoo xam ne coow rek lay jur ëllëg ci biir ndax lotissement boo xam ne amul autorisation de lotir waxuma la ak jaay mais publicité sax boo ko ci defee yoon mën na la topp donc nga def lu lotissement boo xam ne amul autorisation def bornage yi di ci jox ay nit léeg-léeg benn parcelle ñu jox ko ñaari nit ñetti nit loolu ay coow rek lay jur ëllëg boolu ci encore lotissement du kër kese day am parcelle yi nga xam ne mooy nekk kër mais da am ne yeneen parcelles yoo xam ne mooy li ñuy wax équipement yi fu gone yi war a tàngalte seen yaram fu ñu war a fajoo fu ñu war a jàng école yooyu yëpp te ñoom bu ñuy def lotissement irrégulier yooyu yëpp duñ ci duñ duñu ko sóoraale te euh, état bi nag daf fi nekk pour protéger citoyens yëpp mënuñu seetaan ñu installé ay citoyens ci lotissement yoo xam ne euh, yoon yi baaxuñu suuf si terrassé wuñu ko ba nga xamné taw sax bu baree mu am walé ci biir euh, nit ñi. jot naa fi def nak euh, lu yes tuuti rek 100 millions donc ginnaaw bama gissé ki nga xamné si mom moy kilifa gi laaj ko ndax situation sud bi nek na en règle. donc mu wax ma ni lepp nek na en règle dama jot ci am quelques papiers bu am nikat wan ma au moment où j'étais euh, hors du Sénégal en dehors de l'assiette et il s'est trouvé que faut c'est sur le 8 donc après j'ai pu comprendre que ni euh, fiñ pas en règle de toute façon rien n'est encore en règle ici mais am na site en règle ça fait environ 245 hectares

donc bi ñuy dindi tamit gis naa ne bi ñu leen ko waxee dem nañ dindi sama ay bor bornes affaire yooyu noonu j' étais tout à fait d' accord parce que si bu nekk en règle je suis allé porter plainte auprès de la DSCOS je suis dama dama d' accord ci li des koy des ko ci def parce que dindi bor moo gën a yomb dindi ay kër donc lu nekkul en règle teel ko dindi nit ñi bañ cee lor moo gën ñu bàyyi baskan bi yëpp lor suñu soog dem def woote bi nag mooy li nga xamante ni mooy lëmbe jamono rek ñu am maire boo xamante ni dafa yore suufu commune de Cheriflo en yore ko ci ni ko neexee di ko ay soxlaam ñu jël suufu de Cheriflo di dilapider di ko tasaare def nu leen population seen parce que lotissement yëpp yi ngay xam te daf koy commune de Cheriflo amu ci benn lotissement boo xamante ni Nous nañ ko ci yoon ñun ñu yàgg ko décrier dem nañ ba ci moom wax ko locale. nañ ba ci le sous-préfet de Pambal ñu waxtaan ci ak dem nañ ci képp koo xamante ni autorité la ci commune de Cheriflo, Lo ñu wax ko ni ko la gestion de la commune de Cheriflo foncier bi dara leeru ci la gestion administrative tamit dara leeru ci mais jusqu'à présent xëy na tey résultat mi ngi soog a am parce que effectivement Descos ñëw na fi dëndi fi ay borne loolu rek lañ doon xaar te yàgg nañu bind fu nekk fépp fu ñu yaakaar ni bu ñu fa bindee dinañu ñëw jàppale ci loolu bind nañ fa dem nañ fa wax nañ fa pour que ñu ñëwaat ci auditu commune de Cheriflo. foncier commune de Chérif Lo état ñëw audité ko ñu ñëw lépp li nga xamante ni dafay nekk ci lu jubul ñu jubbanti ko c'est tout ce qu'on demande